xeetu jàngoro yi nga xam ni cancer ca la bokk ñu tuddee ko maladie non transmissible bokk na ci la nga xam ni moom moo gën a sonnal réew mi parce que kat day nasaxal euh, doole yi ñii nga xam ni ñii ñoom ñoo yore développement yu dëkk bi te kenn ku ci faatu rek ci ñooñu am na fukki nit ak juróom benn yoo xam ni ña nga wéeru wéen sa ginnaaw la ñu sonnal nag juróomi xeetu cancer la juróomi xeetu cancer yooyu yëpp bu ci nekk am na solution ba ca jiitu mooy cancer bay jàpp buntu njurukaay ca jigéen ko am noon ñàkk am na itam dépistage boo xam ne bii buñ ko defee rek teel a gis teel a faj mu wér ñaareelu cancer ba nga xam ne moo ñu sonal mooy bay jàpp ween cancer wu ween nag teel a gis teel a faj mu wér kooka bu ñu ko teelee gis mën nañ ni la mu doon faat dinañ ci wàññi fanweer ci téeméer bu ne lañu gis itam ku ko teel a gis téeméer bu nekk war nañ cee mën a wéral lu ëpp juróom-ñaar fukk waaye buñ ko yeexee gis moom wax dëgg yàlla ñaanal ka nga xam ni kii moom moo ko amee ñetteelu cancer bi canceru góor la bay jàpp prostate góor gu am ñeent fukki at war nga at mu nekk nga dal di dem daal di def analyse de sang bu ñuy wax dosage PSA buñ ko defee dañ koy teel a gis buñ ko teel a gis du soxla opération du soxlay garab du soxla dara dañ koy daldi di ci biir ak appareil yu bess yi fi am wax deug yalla nguur gi itam def na ci liggéey bu macc ayib te appareil yoy nga xam ni réew Afrique bari wul ñuko fi am fim leen bo genné Senegal, génnee Sénégal yaa koy gissat Mauritanie Togo Rwanda nit ñi di dem ay Maroc ki, Tunisie di fa dem faju Macky Sall jóg ne du fi amee daldi fab juróomi appareil teg ko fi benn ba ma ngi ko tegoon la daan teg fi mu ne nii tëj nañ ko ndax dañu tabaxaat hôpital ñaar ñi ña nga dalal jàmb malaat yi bari nañ bariwaay boo xam ne bii ñeenti téeméer ba juróom benn téeméeri malade ña ngay xaar ñu defal leen ñetteel ba ma nga Touba ña nga ca di ko sanc médecin ya koy liggéey ak ñëpp ña nga fa toog ak la nga xam ni moom lay laaj juróomeel bi moom moo encadré benn projet privé boo xam ne bi man mi maa koy jiite muy centre de cancer bi nekk Wakam mu des benn cancer boo xam ne bii estomac lay jàpp lu bari nag nit ñi fogoon nañ ni estomac xare moo koy indi du dëgg estomac doomu jàngoro moo koy indi bu ñu tuddee hélicobacter pylori kooku mooy joxe cancer te loolu am na antibiotique yoo xam ni dañ la koy jox mu faj la nga wér kon wax dëgg yàlla tey jii la am la wóor te wér mooy ni feebar bi bari na fi feebar bi mi ngi fii bëgg a sax feebar baa ngi xal koom-koomu réew mi ndaxte ku mu jàpp fukki nit ak juróom benn fukki nit ak juróom ñaar ci yow la ñu wéeru woon te kooku xam nga bu faatoo rek njaqare daal am ci kër yi fexe am na nguur gi dugal na ci loxoom xam ngeen lu des yéen journaliste yi dama bëgg ngeen jóg ci yëf yi dugal ci seen loxo parce que lii ñuy wax tey jii bu doon dugg na ci nopp sénégalais bu nekk ragal naa ni kon fi ak fukki at lu bari ci liggéey bi na wàññeeku waaye kon boog jërë leen jëfati te ngeen baal